mais Khalifa Sall est-ce que tamit du yéen xam nga ñoom Dansokho ñoom ñoom Niass ñoom Tanor ak yow mi ak ñoom Aïssata Tall Sall vous avez fait une opposition farouche contre Abdoulaye Wade. mais ni ñu dévoyer le jeu politique. je suis d'accord xam nii xam naa non xaaral rek ni dérive yi amee nii mosu ci am yow nga nekk un rescapé de cette époque là nga ñëw nga fekk si des jeunes ñu benn parcours politique mi militant bi. Euh, est-ce que du dañoo on a trop laissé faire ba nga xam ne ñu dem ba dañoo politique amatul code d'honneur euh, politique lu neex waaye wax lu neex waaye waaye waaye def et que c'est ce qui vaut aujourd'hui à beaucoup de responsables euh, une détention pour des délits d'opinion xam nga ni ñuy politiquer du benn et man je n'ai pas le droit de critiquer ku nekk nooy defee sa militantisme moi je suis un militant je connais l'État j'ai une expérience de l'État 2017 bi may dem kaso bi may bi may bi ma duggee ci problème xam naa ne damay dem kaso parce que dafa am lu ñu ma teg ma bañ ko ñu am lu ñu ma laaj ma bañ ko donc damay dem kaso bi xale yi ne Dakar en flamme c'était te le slogan nañu taal Dakar je dis il n'en est même pas question même pas en rêve pour ma petite personne jaru ko c'est vrai je considérais que liñ may toppee mënuma ci dem kaso waruma ci dem kaso et que je pensais moi que je pouvais me battre au niveau de la justice pour avoir gain de cause mais waruma yàq li nga xam ni moo tax mun ma doon maire de Dakar pendant quatre ans ou cinq ans six ans nga jël ay milliards def ko ci Dakar di ko yàq mu ko def c'est différent mais ku nekk ak ni nga gisee man je juge personne juge les méthodes de personne mais je considère que